fi nak neena fi lay wëlbetikoo ci deug deug gi talif wi wax li ma taxone jog te hoor na ma yalla mom nekkalon na ma dembu nekkal ma tay te day gën di rek dima nekkal kon muqaddamatun li luñu jital la li moy buntu téere bi lim njëkk njëkk wax moy dina suñu borom ji bi ko dañ koy def ñetti xaaj ci ni ko yonante bi jàngale woon ci xadiisu amar ibn xataab boobu nga xam yàgg nañ koo leeral ay yoon yoon mooy yonante bi ba ko jibril laajee lan mooy al islam ak lan mooy al iman ak lan mooy al ihsan nam ko tontoo woon ci sëñ bi jàngale noonu moom itam moom la waxati ne yonante bi nga xam ne moom la yàlla yónni mu toroxal noonu yàlla yi di nag jaam yàlla yi diineem ci mu andi ñetti xaaj rek la al iman gëm da nee na ku am iman jël sentu ak mucc ñaaral ba al islam te ku amee lislaam day séentu jàmmi yàlla tey ëllëg ñetteel ba mooy al ihsan koy wax rafetal te ku ko amee day sentu ngërmul yàlla ëllëg mu ne nag buñ ne xaaji dina ñett la al iman al islam al ihsan ku ci ne am na xam-xam bu koy jàngale al iman bu ci bëggee xam lu leer da koy seet ci téere yi jàngale tawxid al islam bu ci bëggee amuk leerlu ngay topp téere yi jàng fiq al ihsan bi fi rafetal moom nee na ku ci bëgg lu wóor da koy seet ci téere tasawuf tasawuf moom la wax ne day xam-xam boo xam ne dafa mat tey matal mu ne man mi nga xam ne dama di xaritu bi yàlla bu matal wëlëre ci tasawuf la ma yàlla defe mooy jëmm ju mat juy matal ñeneen